le mariage de notre international Sadio Mané de passage on te souhaite un heureux ménage Sadio Mané une très longue vie et une très belle vie toi et ta conjointe inshallah. donc tierno, loo euh, mariage suñu nyancho national Oui, mais national félicitations et bon ménage Il y a le, yal na et puis les plus de du mu gën ci Hein, et il il mérite plus que ça Les stars interplanétaires, nga euh, interplanétaire hein, euh, tu te maries euh, dans la sobriété comme ça c'est exceptionnel tu vois c'est très c'est très rare quoi vraiment c'est très rare ñun daal je pense que Sénégalais aussi ñu du fond de leur cœur que y a ko jàmm ci biir séyam merci beaucoup euh, ñu gis tamit euh, ki nga xamante ne moo di ñaaña euh, bi ñu annoncé mariage bi ba yenn image yi génn ñun dañu cee xasa xasa xas ñu jigéen ñi ba lu ne yekk nañu ko ci. en tout cas lu nañ surtout ñi nga xamante TikTok euh, elles sont tout le temps sur les réseaux sociaux surtout ñi nga xamante ni seen euh, c'est pas trop décent que le fait de d'exposer vos rondeurs et tout ça du di may a si une femme musulmane bu sañoon da ngay mais parfois yàlla mooy am lu mu rëdd sa jë ni fii ngay jaar lii ngay am lii ngay am te par force loolu si ngay jaar te dañoo war a xam aussi que c'est vrai que mariage bi daf ñu jàngal lu bëri. Mhm. donc euh, nekk na loo xamante ni simple na. te jii da ngay gis ku ñuy takk benn ñaani boo xamante ni mu nii jox nañ ma war cent millions des fois même dañuy. Euh, réel réel dañ koy réel am na fi jaaroon je vais taire le nom su ma waxee di nga xam. kan la jëkkër ji dafa loué oto. jox Galbi, ni mon la ko may premier cadeau alors qu'après après on s'est rendu compte sénégalais dañ ils se sont rendus compte que le mari dafa louer la voiture ni jox Galbi les clés juste pour nous faire un moom donc am na yoo ni nii donc tout ça aujourd'hui nous avons xam nañu on connaît son salaire. effectivement on le connaît donc Diabar euh, ji gis ngeen comment elle a été simple et tout c'est vrai mais ça ce n'est pas une raison pour des xas jigéen mhm. toutes toutes les femmes méritent d'avoir un mari effectivement góor bu nekk war nga sagal sa Diabar. donc loolu ci boppam l'islam moo ko wax donc euh, nañu bàyyi xaste yi nag xaste yi yëpp doon <laughs> non chaque jour at bu bees réseaux sociaux yi tey ñu ay waaye suba góor yi ay de bu leen yaakaar ni génn ngeen ci noonu léegi Mbaye Sène tu as vu le mariage de l'international euh, Sadio Mané hier qui s'est déroulé en en privé je peux dire c'est vrai. J'y étais. Hein euh, on a vu franchement une, une, femme, une femme simple, un mariage très simple, un mariage boo xamante ne joxe ne ay ay njàngat yu bari. Mm-hmm. ñaaña nag yow yaa yow c'est bien parce que si sans amour vous se mouche. Mm-hmm. yaa ngi dégg mouchoir yaa ngi nii am nañ ko indi parce que d'habitude li tax gars yi dem di louer ils def ay affaires parce que dañ leen di. wala famille yi amaan du ñëpp ah. mm-hmm. Mm-hmm. mais soo ko seetee ñu ci bari dañu naan joxe nañ nangam joxe nañ nangam mooy bruit de couloir. Mm-hmm. waaye tey kenn mënu la wax la dot de ce mariage kenn mënu la ko wax. ça prouve encore une fois que ni euh, Sadio est très très bien encadré. Sadio il est très bien encadré et ñi koy xam nañ lan de priorité. démb ko dem ci mariage bi nga xam ni euh, euh, bi yar nañ ko. ay parent am ëmbal nañu macha allah moom Sadio moom ci boppam image am rek moom la bësam reflété une personne simple image am rek la bësam reflété euh, enseignement yi nag bari na jàngati bari na mais luñ koy ñaanal mooy yal na ko yàlla suturaal defal ko jàmm da ngay gis sax ci kii yi dañuy naan le le le le président des célibataires mais loolu dañ na tey. moom laa bëggoon ci loolu laa bëggoon ñëw. célibataires yi am ngeen ngandu maam. problème le président des célibataires loolu dañ na dañ na démb. bravo à Sadio. et euh, aussi à ñi nga xamante ni bii nii tey œuvre nañ jàpp nañ ci bu baax a baax ba loolu tey mën a am ndaxte ci encadrement la bañ ko doon wax ci Coupe d'Afrique Sadio na takk na takk nga lu jot yomb ak ca fañ ko war a defee def nañ ko au bon moment. sentir nañ ni période bi Sadio war na koo def def na ko loolu ça prouve encore une fois que ni le jeune est structuré et teg nañ ko ci yoon woo xamante ni bii nii su ko wàccul te góomu mu wàcc ko ndaxte am na yar wi li nga xamante ne mu ngi ci kanamam yàlla dina ko ko defaral. amiin yaa rabbi jërëjëf Mbaye Sène am na bëri na enseignement yi nga xamante ne mën nañ ko ci jàngata euh, que des choses positives mais balaa maa dugg dellu si waat li nga xamante ne moo di suñu sujet damay jël suñu premier téléspectateur xëy na moom am